bu ngeen gisee Excelec ñuy wax fête du fii Excelec sunu kër bu ñu boolee département bi nekk jam Diamniadio ak bi nekk Hann boo xoolee nit ñi xool ñu topp suñu ginnaaw di liggéey ak ñun boo leen di xayma dina war a mat au moins 5000 personnes yoo xam ne ngi liggéey di dund ci entreprise bi ñu war leen toppatoo war leen sàmm te sagal leen bu baax parce que du du yéen fi nekk rek toow teeg teew yéen yéen a yore seen kër seen kër dafa am ñeneen ñoo ñoo xam dañ ci bokk du ngeen leen gis ñu ngi ci àll bi ñu ngi liggéey liggéey bu am solo parce que lu ngeen liggéey ñoom ñu samp ko tiire ko raccordé ko taal ko te programme boobu président la république moo ko définir moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te ñaanal ko yàlla kenkenaam bi nekk kenkenaam bu sedd muy euh, suñu intérêt ñun ñëpp ak suñu intérêt ay famille donc loolu mooy Excelec Excelec waxoon naa ne dafa am cofeel bu am sama ma diggante ak yéen te cofeel boobu dama ma yàlla moom mooy na continuer cofeel boobu nag dafa nekk dëgg ci man parce que gis naa ne yéen ñëpp nekk ngeen benn te bu ngeen nekkee ya benn da ngeen di yombal yëpp fii am musmo fi dégg kuy xuloo musmo fi dégg kuy ŋaayoo usine bi set na te bu setee mooy seen ay xol set nañu parce que ku sa xol leerul sa liggéeyukaay du set à partir de ce moment là je pense que yéen ñëpp benn ngeen li ngeen nekk benn nag dafay gën a encourager li nga xam ne moom laa